mënoon nekk leneen dafay kon un intellectuel parce que c'est un c'est une question de niveau. ma ne intellectuel pour nga tontu ko da ngay nekk intellectuel c'est c'est une question de niveau du question rek li ma sentir waa ji wax na lii naqari na ma et tout euh, man quand j'ai vu certaines réponses très sincèrement j'ai pas été déçu pas du tout. bettu la ah. bettu bettu ma. parce que c'est des gens qui ramènent tout à la politique politicienne loolu rek nañu jàpp loolu nañu xam quand il y a un ministre du commerce qui n'est pas capable d'assurer un service minimum d'oignon au Sénégalais sa dire département bi ñu la jox mënoo ci def dara li nga xam ne. sénégalais mën nañ la taper deux deux mai. ça vraiment ça n'a rien à voir. oui non mais si si si. Ah, non non les sénégalais mënuñu taper deux deux mai. ça c'est du la question de la loi sur la baisse de la location ba tey jii. il ne parvient pas à régler ce ah, problème là. les sénégalais continuent de payer très cher le loyer alors que fii la taxaw yuuxu fii lu nekk ne. des marchés qui sont perturbés ça on le voit dans tous du monde. muy benn ça n'a rien à voir avec le ministre du commerce. je suis désolé nous nous l'attendons ailleurs que dans l'invective et autre chose man foofu laa jàppee ce truc là c'est des intellectuels s'ils ont des des intellec euh, s'ils ont des intellectuels nañ leen génn ñu tontu kii euh, l'a rappelé tout à l'heure les essences qu'il y avait ici entre et eh, kii nga xam ne mooy Boubacar Boris yow épique et tout mais nit ñi jàng ci mais lii jànguñu ci dara absolument rien mooy benn bi mais Issa il faut pas que cela nous surprenne je vais je vais surprendre mon ami parce que man qui ai vécu sous Diouf même à regretter Abdou Diouf non j'en suis à regretter Abdou parce que li ñuy gis nii nii nii nii nii ça s'appelle une non-maîtrise de l'État. Il n'y a de l'État. Ce qui se fait, se fait au pif et au flair. fii maam Birame laa di kaso bi mooy seen arme cest à amuñu benn réponse bi nga am ne mun nañ ko jox nit ñi. lu dul kaso. contrôle bien tes propos hein. rien à contrôler moi je dis ce que je pense. ce n'est pas mon problème grand. je dis ce que je pense. mais pour te dire que ici. il ce manque de culture de l'État Issa. je vais rappeler une anecdote ici. président Abdou Diouf dafa am benn kilifa sëriñ bu fi taxawoon amul lu mu ko waxul les gens du PS ñëw taxaw. ne ko non président kii doo ko bàyyi kii warul fanaan fii mu ne leen non vous confondez man abdu Diouf la saaga saagul président de la république mais fii ku ko fi defoon tey jii fii ku ko fi defoon lii ñu defoon Abdou Diouf ku ko fi defoon daañu la tëj ba damm caabi bi mais c'est pour ça je dis une non maîtrise de l'État ku mun a foowee la puissance de l'État ku mun a foowee la puissance publique ba le jeu démocratique nga koy bafouer di ko piétiner mais c'est parce que sa waay on est plus en sécurité il le dit en rigolant c'est vrai hein <laughs> xamal la non il le dit en rigolant mooy que orange yeeg yooyu bon heureusement on a des épouses on a de la famille boo indiwul orange ñoom daan ñu indiwul orange mais une chose est je dis que encore une fois bu dee c'est la menace qui doit être la solution pour faire taire les gens

Abdoulaye Wade ne serait jamais président. j'en mm. suis sûr et euh, euh, muy ben neel benn. Pape si y a non non s'il te plaît. Mm-hmm. s'il y avait pas ce consensuel. et si Wade n'avait pas fait preuve de magnanimité. en 2011 oui. bi ñuy topp président Macky Sall bii dans cette histoire de blanchiment d'argent si le président Wade n'avait pas fait preuve de magnanimité. Mm-hmm. daa di ne non je mets toute ma puissance parce que c'est un adversaire politique à annihiler. kon moom président Macky Sall waxtu wi ñu jëral mooy wàññi jeex le pérenniser. waxtu wi ñu jëral mooy wàññi jeex dama ko chronométré sax nee nga quelques secondes. waay waay man damay euh, bu fekkee ne. ci biir débat bi wax nañu fi loo xam ne xaw na heurté nit. ñi ngi non non non pas du mais tu sais pas. non euh, je veux pas de problème quoi. je veux pas de problème avec toi quoi non a a pas d'écart. y' a aucun écart moi je te dis toi je t'aime bien. a aucun écart parce que a aucun écart. je sais que ne vous supportez pas les conditions carcérales quand je parle là c'est pour vraiment vous mettre en garde c'est ça vraiment je vous le dis. mais tu sais des fois fois on s'emporte parce que. non euh, quand quelqu'un a un niveau. Parce que vous, quand même, pas, vous ne devez pas, quand même, au regard de votre expérience, et je sais quand même que je vous entends, vous parlez surtout des questions de, liées à la justice, à l'administration. Il y a des questions que vous ne devez pas adopter avec, de la légèreté. Parce que jamais, quand même, à la décharge de notre gouvernement Pape nous nous vivons aujourd'hui ce que nous appelons le phénomène des réseaux sociaux Baara Baara Gaye dañu fi toll nii da nga doon da nga doon préciser ah, rek non non non da nga doon non da terminer il faut nous faire cette amabilité c'est en 30 secondes je dit c'est en 30 secondes j'ai dit Pape ce qu'il faut pas confondre gouvernance Diouf Abdoulaye et Macky c'est que cette actuellement nous vivons l'époque des réseaux sociaux tous les gouvernements tous nos institutions tous les jours que Dieu fait nit ñi dañ leen di saaga dans les réseaux sociaux il y a plus de quarante journaux qui sortent au Sénégal une cinquantaine une quarantaine de télévisions et de radios la wax sa xalaat tout le monde dit ce qu'il veut aller dans les pays tout près ici y en pas hein la wax sa xalaat y a qu'au Sénégal ça permet à la démocratie de respirer c'est bien donc faut pas dire il faut réguler la démocratie ce n'est pas quand même du libertinage ce n'est pas le désordre quand on touche aux institutions de l'État mais vous tombez sur le coup de la loi les journaux là mais journaux mais journaux wax les journaux là c'est l'État qui a permis création le directeur de publication toi tu n'as jamais été convoqué pour te

xam nga on n'attaque pas des institutions. mais euh, euh, euh, Issa man di nga ñëw di nga ñëw di nga ñëw. ah, ah gars yi jël ñaar parole ñaar ba ñetti yoon sama kaw. li ma bëgg a wax baara rek mooy que man su ma toogee fii di wax dinaa wax ba pare sama benn wax doo ko yëkkati nga ne lii moom teguwul tout ce que